voilà soxna si gis nañ ni Idrissa Seck moo nekkoon euh, deuxième partie euh, opposition bi ëpp doole léegi ñu gis ko mu dem suivre euh, président Macky Sall yow loolu noo ko jàngatee. Euh, dëkk bi dafa nekk ci euh, crise ku nekk xam na ne pandémie bi am na lu mu fi def ba tax na président de la république lu mu def rek ñun jàpp nañ ne euh, juste pour dafa ubbi gouvernement bi pour ñëpp ñëw dugg jàpp si parce que dañ nekk si temps de crise boo xamante ne bi soxla nañu xalaatu ñëpp soxla nañu soutien wu ñëpp muy opposition muy société civile ku ci mën a bokk rek war naa mën a ñëw liggéey daal pour mën a génn ci crise bi idée moom comme que def na loolu parce que ay temps xam nga di nga gis réseaux sociaux yi muy wax ne man lu dul président wala yeneen kii mais ay ministres yooyu noonu taxu moo jóg ak yooyu noonu xam nga nit ku dem ba wax loolu noonu tey ñu ñëw fan la nga doon ministre ak yooyu xam nga xëy na ñoom ñaar seen diggante la daal moo wax Macky Sall ak yooyu noonu peut-être am na lu mu ñu mu si jublax loolu. su fekkee dafa dem peut-être pour liggéey jàppale sénégalais yi gisuma problème bi mais nekk parti opposant aussi. te defoo benn acte boo xam ne peut-être 2024 mën nañ la teg si si dëkk bi vaut mieux su amee poste boo xam ne moom mën na ko occuper te mu fair avancer les choses donc je pense que c'est une bonne chose après empêché wu ko aussi 2024 mu présenté wu pour élection yi. jàppoon ne Idrissa Seck moom mu nekkoon en solo continuer nekk opposition ba 2024 mu bokk si élection présidentielle gënul woon si carrière am. loolu moo gënoon ñun loolu la ñu séntu si moment sincèrement wax dëgg yàlla pour mu xam nga bokk doon président mais ñoom ñëpp dafa mel ni Macky da leen di nax quoi ñoom comme ay xale yu ndaw. waaw peut-être que moo gënoon si moom mais je pense que Idrissa Seck euh, les Sénégalais n'ont pas assez confiance en lui d'après mon donc peut-être dina am jaar-jaar comme Macky Sall moom nekkul woon forcément au au pouvoir nekkoon na opposant Ablaye Wade woon na ko jox na ko ay postes de responsabilité mu occupé ko. donc finalement dem na ba xam ne moom il est capable de gérer le pays mu dem présenté wu ci élection yi donc je pense que Idrissa Seck il a les mêmes chances mën na euh, occuper poste bi comme mën na 2024 mu détaché wu nekk opposant dem présenté wu ci candidature mais mën na jóg tamit pour defar moom Macky toog waxtaan ba juboo ci ay kàddu ba kii daal loolu yëpp mën na ci am mais daal ñun nañ ñaan rek. nu ñu bëggee ñu ger ko ñu tegu ci yoon daal loolu daal moo moo ëpp njëriñ. ba tey ci wàllu émigration gis nañ ne chiffre bi ñu joxe euh, ñu bëri ñu ngi naan euh, xayma bi ëpp na lool puisque diti bi ñu doon dem dañu doon làqatu état bi du coup état mënul xam forcément ñaata nit ñoo dey. bon je pense que loolu tamit dëgg la parce que ci géej la donc am na ñoo xam ne gis nañ leen am na ñoo xam ne gisuñu leen donc je pense que 480 boobu chiffre estimatif la boo xam ne ñooñu la ñu gis. ñooñu leen trouvé mais am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci biir géej wala teer nañ si yeneen dëkk yoo xam ne ñun xamuñu leen donc loolu chiffre approximatif la rek mais réalité bi ëpp na loolu. lim bi mën na romb foofu sax ma ñoom li ñuy calcul sax mën na ëpp lool daal parce que ni gars yi ni ñuy demee ni mën nga am na ñoo xam ne dañuy dem ba seen gaal soobu xax yooyu noonu te doo après ay koor li ñuy gis ak yooyu noonu xam nga loolu mën na si amoon da naa si li ñu noonu dëgg yàlla. tax xale yi di jël mbëkk mi di dem mais man jàpp naa ne yenn yi jaay sa bakkan la wala xaru parce que mën nañ toog fii Sénégal tegi boo xoolee yeneen étranger ñi ñëw Sénégal di jaay xaal ñii di jaay ndox ñii di ñi marchand ambulant te ñu ngi ciy régler seen i problème ñu mbëkk mi kon lu tax ñun suñuy doom di bëgg rek di rey seen bopp ci ci ci àll bi balaa ma leen parce que bëgg a tekki ak bëgg a teral moo tax ñiy def loolu mais dëkk bee dëgër ko g yi di dem puisque fii amul dara gisoo li fi am Sénégal ñii am ñooy am ñii ñàkk moom mooy loolu xam nga magam jëmm toll ni ni nga war a toll mënoo lijjanti fukki dërëm wala 200 day metti mais boo gisee mbënd mi da ngay dem boo gisee gaal da ngay dem sa yoon loolu rek la billaahi dëkk bee metti aja bari nañu dugg nag mais ñi dee bari nañ trop trop trop soxna si. beneen feebar am na ci caaroy ay euh, ñoo xam ne ay mool lañ voilà loolu yow noo ko gisee. waaw ni ma ko jàngatee rek moo ñi xool ba xam est-ce que du ay produits yu ñu sotti tamit si géej gi. waaw parce que loolu tamit jar naa seetaat ndax ñi ngi ñi ngi napp jëni jëni di ñëw ñi koy lekk xamuñ li ñuy lekk lu mu doon nañ ci dimbal na scientifique yi xool ba xam lan mooy lu lu indi loolu démb laa si dégg gars yi di si wax ak yooyu noonu naan euh, jën yee koy joxeex ak benn produit bi ñu sànni si ndox meex tubaab yee ko def ak yooyu mais amaguñu liñ si leer daal mais daal gouvernement bi moom li ñu leen di ñaan rek a ñu yor wàllum santé bi ak yooyu noonu xam nga ñu gën a saytuwaat affaire yi daal xool affaire bi nu mu demee ak yooyu noonu rek ñu ñaal ñaal la tamit comme corona bi nu mu fi jógee nii bi tamit mu bañ fi sax toog ñëw rek yàlla mu dem daal ñu séntu xoo wax leneen. compliquer na gaa mais pour man état bi war na mën a gaaw def investigation ci feebar bi ban façon feebar la lan moo ko indi aussi euh, nan lay wàllee nit ñi parce que tamit fii Sénégal la culture bi ñu am mooy dañuy duggante dañuy saafonte et tout.